asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi nuyu njiitu kër gi di ko sargal di nuyu personnel bi ñu ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye si Pikine ak Soxna Masila di nuyu Soxna Gagne Siriga yi ñu ngi nuyu le colonel Moussa Fall ak le commissaire maa ngi nuyu asphal di transporteur si yëmbal di nuyu Abi Fankasa Espagne maa ngi nuyu Cheikh Thiaw ak soxnaam Aminata Gueye di nuyu Mamadou jaay sapeur à la retraite si Amon cinq ñu ngi nuyu soxna yi di nuyu waa Xombal aussi di nuyu dëkkandoo yi ñu ngi nuyu directeur wu centre horticole bu Cambérène fi ñuy tourné émission bi nii tey dañu ñëw si garab gu am solo muy aloom alom nag defe naa ni yàgg naa ko junj ni ñu di ko laaj ndax léeg ma joxe si dara si wàllu baatin ndax mosoon naa fi wax ni ñetti reenu alom boo ko suulee si boutique ba wala magasin ba si kàttanu yàlla ab jëndkat du fa jóg loolu mag yi dañ ko def waxoon naa fi nit soo ëmbee war na lor. di baxal xobu aloom di ko naan si kàttanu yàlla booy mucc doo am benn jafe-jafe alom moom la ñuy wax le Diospyros mespiliformis walla le Diospyros senegalensis wala le Diospyros japiensis sabiensis sabiensis kon am na ñetti nom scientifique yoo xam ne ay synonyme lañ muy le Diospyros mespiliformis le Diospyros senegalensis ak le Diospyros sabiensis muy ñetti tur yoo nga xam ne ko jox aloom wolof nag mooy wax aloom mais séréer neen lay wax neen suñ mbokku tukulóor wala pël yi di ko wax kukude wala kuuku mandeng di ko wax dooba kooku mooy aloom tey nag si xob bi rek la ñuy wax xob bi kese xobu aloom ndax li si na si njariñ dafa bari garab gi bu ñu bëggoon wax si xob bi wax si reen bi wax si xas mi fi la ñuy fanaan mais tegtal bi ñuy njëkk a joxe si xobu aloom mooy hyperthermie ki nga xam dafay ñàq day bul su bëggee loolu wàññeeku na jël ngëbu loxo rek si xob bi baxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll kaas bu ndekkee bu añee bu reeree soo gisee ko am newo wala taab tëpp tëppale si xob bu tooy bi diw si taf ko si si kàttanu yàlla dafay ñor dafay bënn ki am tàngooru yaram muy fièvre na jël ngëbu loxo ko si litre ndox su baxee juróomi mu segg ko di ko naan par genn wàll bu ndekkee bu bu reeree ki am ménorragie wala métrorragie ménorragie mooy ki nga xam ne ay règle am dafay ñëw continuer ëpp juróom ñaar day dem ba fukki at ak juróom fukki juróom wala ki am métrorragie yi nga xam dafay am si diggante règle dafay amaat gisaat règle si diggante règle maanaam bu règle yi waree ñëw fanweer ñaar fan ak juróom-ñett yu nekk maanaam weer nag mu ñëw si benn yoon si diggante da koy gisaat loolu ñuy wax métrorragie mais ñaar yëpp si kàttanu yàlla xob aloom da koy da faj tëbal sa loxo ba mu fees nga baxal sa liis ndox su baxee juróomi minute nga segg di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo reer bopp tibbal si xob bi nga baxal ba mu baax nga sëgg di ko suba ba mu baaxal ko di ko naan si kàttan yàlla daf koy daf koy faj xobaaloom ñi am feebu xëtër bi ñuy wax pneumonie na tibb si loxo ba mu fees si xob bi baxal ko si litre ndox su baxee juróomi mu segg ko nga koy naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boo reer ki am carie dentaire mooy bañ yooyu di xonk di daal daal suñu mbokk saalum saalum bi na ñu jël rek xob bi baxal ko di ko garandi ko ndax xorom see xorom soo ci ndox xorom ba ñuy naan moo tax mu leen daal mais booy baax garanti koo xobu alom bi si kàttanu yàlla dana ko wàññi bu baax a baax a baax moo de cœur muy xol buy metti waxuñu rek estomac mais xol bi si boppam buy metti tibbal sa loxo si xob bi xob alom bi baxal ko si litre ndox di ko naan par kaasu boo ndekkee boo añee boo reer feebaru sëy bi ñuy wax soppis muy soppis ñu koy wax blénorragie wala gonocoxie wala gonorrhée tibbal sa loxo ba mu fees si xob bi nga baxal ko si litre ndox di ko naan par genn wala kaas da koy da koy saw ba mu jeex tàgg épilepsie muy mbér la dang koy baxal diko suuro baxal ko diko naan si anam yi wax legi budé da nga si bëgg ar ëmb wax nañ ko legi dang koy baxal diko naan liko dalé ñett ñetti ëmb koy commencé am doom si carton yar do am benn jafe jafe jafe su boba sa loxo ngay tib bam fess baxal ko litre genn di naan par kaso atay bo ndéké bo aña bo feebaru xel xel feebaru xel yi nañ koy defal ñu naan di baxal ñukoy koy ci si yalla dañu am jamm affection respiratoire bu mu mën ba si saqat sax da koy faj ci tibbal solxo ba mu fees nga baxal si lii litre ndox soo baxee juróomi minute nga segg ko di ko naan par kaasu ataaya boo ndékkee boo añ gis nga xob bi euh, ñi am ñi Covid bi dal te tëlee na ba nañ koy baxal di ko naan muy xob xobaalom bi si kàttanu yàlla danañ am jàmm ñi nga xam dafa leen bàyyi saqat ak dënn buy euh, lakk di jàmm buñ ko dee danañ am jàmm xam nga Covid bi moom li ma waxoon gars rek moom defe naa ne li ñu joxewoon woon moo tax mu jug Sénégal. waaw benn benn kaay bii am nag mënta ñàkk xam nga dafa nekk loo xamante ni wàll bi dafa gaaw foog mu bàyyi ay traces mais ñëpp defe naa ne am nañ si lu leer que ni te li ñu joxe moo fi jële corona bi si kàttanu yàlla. kon na ngeen koy kon ne di jëfe te xam ne tawet bi moom du xëy rek disparaître définitivement mais dafay dem ak ñëw mais doole moo mënatul bari fi mu nekk nii loolu bu yoboon ni ñi sóoraale ko mënatul am doole si réew mi. question yi ñu indi tey ñaar la kii day laaj lan mooy splénomégalie splénomégalie waaw splénomégalie dafa nekk loo xamante ni mooy li ñuy wax kërandoom laa rat muy kërandoom la ko olof di wax su yokkoo am na feroom bu ko dalee dafay xaw a yël volume dafay yokk tuuti yokk dayoo moom la ñuy wax splénomégalie d'accord bokkul nag euh, hépatomégalie hépatomégalie moom restu la mooy xaw a mel ni yokk volume booy xool sax daanaka da ngay day nuru day yokk volume mais yokkuwul sax mais rigidité moom moom lay perdre xam nga res boo ko laalee dafa war a nooy mais su la dalee hépatomégalie boobu res bi day dëgër pour nga téye ko day jafe kon loolu mooy hépatomégalie ñaareelu question bi scarlatine scarlatine lay laaj scarlatine benn fièvre la boo xam ne dañ koy jàpp bu la dalee sax dañuy yaakaar ni grippe dañ koy tuddee aussi la fièvre écarlate ou deuxième maladie am na ñetti tur yooyu am na tur bi ñuy wax scarlatine scarlatine wala fièvre écarlate wala deuxième mala maladie si maladie infectieuse la bokk nag yi nga xam ni li koy indi mooy bactérie bi ñuy wax streptocoque moo koy joxe kon ñu bàyyi si xel bu baax a baax a baax danaa ñëwaat si jëmi jamono joxe si ay tegtal ak ay conseils ñun tàggu fii di leen jox naan beneen jotaay jërëjëf